waaw tey dañoo ñëw pour feddaliwaat euh, euh, kóllëre ak jéem itam waaye itam pour profiter de l'occasion pour waxtaan ci wàllu médecine bi nga xam ne ci nga nekk di ci yëngatu léegi mu mat ñaar fukki at su ma juumul ñaar fukki at waaw jege na ko. résultat yi nga xam ne médecine bi am na ko àddina bi yëpp teg ci seen bët tey ngeen doon médecine boo xam ne ñëpp accepté na leen ñëpp nangul noonu leen maanaam fan nga jëlee médecine traditionnelle bi. nga waxal nit ñi itam ci jaar-jaaru Cheikh Omar Diop ndax yitteel na nit ñi laataa loolu ñu bàyyi la nga nuyoog jàmm ñi ba pare bisimilah. alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah xam auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum uh, alhamdulilah di la dalal di kontaan bu baax ci it uh, ci xalaat bu nga xam ne am nga ko di la delloo ndokkeel bi nga xam ne yaa ngi koy la ci leeritu xadar bi nga xam ne ci lañ jóge yàlla wax ñu xayru min alfi shahri tanazzalul malaikatu wa ruuhu fiha nga ne lim am ba tax mu gën junni weer mooy jibril mi ci wàcc ak alquran ñaar ñooñu nekk ay mbir yoo xam ne mbir yu kawe lañ ci yàlla tax na ngëneelu laylatul qadr am ngëneel li mu am ñaan yàlla mooy ñu fekkee ko ci at yu bari sant yàlla ci laaj bi nga xam ne laaj nga ko ci sama jaar-jaar ak fan laa bokk fu ma soqe ko man sama waajur mu ngi tudd Serigne Ndiaga Diop dëkk dëkk bi ñuy wax la Leguem yàlla boole ñu ci askan woo xam ne askan wu xam-xam la nga xam ne baayam moo ngi tudd Babacar Diop maamam tudd Makhtar Diop nekkoon ay boromi xam-xam yoo xam ne jamono ante woon nañu ma ba jaxu sama maam Makhtar Diop jamono ante woon nag tafsir ma ba jaxu ak ki nga xam ne mooy Seydi Mouhamed di bàyyi El Hadj Abdoulaye ak ki nga xam ne mooy Mamor Anta Sali di bàyyi Serigne Touba ñooñu ñëpp sama maam Matar Diop jamono wante woon nag ñoom waaye moom moo leen féete woon mag lool yàlla mayoon ko ci xam-xam ci dimension bu kawe boo xam ne daawuñu woon def lenn te daawuñ ci woon diisoo ak moom ma bajoxu mi nga xam ne nag moom moo indi woon euh, doon xeex ak ceddo gi ceddo googu jaar bi nga xam ne moom la mujjee taxaw bu mu géntee ñu wax ko ne ko nataal jaar jotul gént na ko ñaari yoon waaye waxtaan na si ak maam boobu jox ko ci ndigal waaye taxaw taxawal ko dimbal ci taarix nag léegi dafa dem demin boo xam ne kenn ku nekk léegi si sa maam rek ngay wax doo nangu mukk li xew lépp nga wax ko waxaale ci maam yoo ko fekkee woon waaye ñun suñu maam yàlla dawaloon na mu nekk koo xam ne boo gisee woon boo gisoon sëñ tubaa daan jugee njaareem daan ñëw Ndofane di seet sama maam bi jur sama yaay nga xam ne mooy Malick Diop ba yàlla dogal fas Sëriñ Tuubaa bu weex bu ngelaw bañ daan war wam daan war ñu suul ko Ndofane pour dëggale ko sama wax bàyyi Sëriñ Tuubaa da daan ñëw ci sama maam nekkoon xaritam ñu bokkoon nekk ay wëllëre sama mbaa sama maam boobu nekkoon borom xam-xam boo xam ne dafa yàlla daf ko mayoon xam-xam bu jéggi dayoo xam-xam boobu nag ñun moom lañ donn moom lañ am. moom moom moom euh, suñ bàyyi jooju suñ maam moomu euh, doom moom bi ñuy wax Matar bi ñuy wax euh, Malick Diop Malick Diop moomu mu nekkoon xaritu suñ Touba Serigne tubaa daan ñëw suñ kër ndax sama daraan gis maam baayam daraan ñëw ci sama maam moom it xam nga mag ñi bu amaan kóllëre dañ daan boole seen ay doom loolu moo waraloon Serigne Touba radiyallahu anhu doom jugee tuñ njaareem di wàcc Ndofane su jugee waan mm, mm, mm, euh, euh, euh, Poroxaan day wàcc Ndofane soo ko jàll Njaareem su jugee Njaareem wàcc Ndofane soo ko jàll Poroxaan waa sama maam bi nga xam ne moo jur sama yaay ci wàllu jigéen sama maam bu jigéen kooku fas woowu moom moo ko mujjee may ndox mu naan ñu ngi ko denc Ndofane la gem noonu lañ mel ak mboolem këri diine yi fi nekk yëpp dama ma sama bàyyi nekk mu xattamu suñ Babacar waaye nekkoon xaritu suñu Abdou kaamilu alxuraan Eh, roi Assane II joxoon na ko sëñ Abdou ne ko maa la ko takkee kóllëre kon kaamil Alxuraan boobu sëñ Abdou sama bàyyi la ko jox takkee ko kóllëre ndax Maodo mi nga xam ne mooy sëñ Abdou su déggee lii dana xam ne li may wax du wax caaxaan Maodo moomu sëñ Abdou yónni na ko turu yàlla woo xam ne da ko doon wër ci ci àddina bi yëpp mënu ko am moom moo ko nettali ci làmmiñam maa ngi teew ci ndoofaan bi sama gépp bàyyi làqoo mu ñëw taxaw di ko yoon Abdou yónni ko da ko dama lu ma sëñ Njaga Jóob ndax booba magee na te mënut a ñëw hmm. mu ñëw fa wax lii ne sëñ Njaga de seen bàyyi fu dem àddina ak Étienne moo diggee Ndofane la nga bi gën a guddi ci Ndofane moo koy moom waaye yàlla dafa def mu nekk waliyu yàlla bu làqu boo xam ne bëggutoon feeñ mhm. ndax sama bàyyi sëñ Abdou tur bu ma mës a yónni wala secret bu ma mës yoon yónni su ma wëree su ma magee tijaan yi su ma du ma ko am waaye su ma ñëwee sëñ Njaga dinaa fekk maam lu ko waral sama maam bi nga xam ne moo jur sama sama yaay suñu bagage yi maam yi moom moo ko mujjoon gannaaw gën la ko dénk sama waajur su góor sama waajuru góor euh, ak sama waajuru sama waajuru jigéen seen bàyyi dañoo bokk ay ay dañoo bokk ndax man sama yaay sama bà sama sama bàjjan sama doomu bàjjan la sama doomu yaay la yaa ngi dégg donc ñun ay man ak moom ay mbokk lañ waaye sama yaay la tamit ndax sama bàyyi sama baayam ak sama papa seen bàyyi ñoo seen seen seen ñoom ñaar seen bàyyi ñoo bokk ndey ak bàyyi donc yàlla dogal ñun ñu bokk ci famille boobu man genn wàllu xam-xam bi may fajee yëpp man samay bagage bopp la man xam-xam bi may fajee man dama ko judduwaale man dañ may wax dañ may wan man fajkat yi dimension yi ñuy fajee man ñaar ñoom bokkuñu ay dimension yi ñuy fajee ñoom li ñuy fajee dañ koy jàng dañ koy jàng ci ay këyit lu leen ci ump ñu dem laaj ko ñu ko jàngal man dañ may gàgganti léegoo léegi may faj nit mu am mu am jafe-jafe yàlla may na ma tawféex mën naa jógee fi ma nekk ci guddi dindi gàllankooru nit ki ca këram te du ma jógee fi ma toog te guddi lay nekk te moom doo xam ne ñëw naa ci këram seytaane yi koy kar jinne yi koy kar wala dëmm yi koy kar wala gàllankoor yu mu mën ci am yàlla may na ma possibilité man ma mën a faj nit te du ma sama kër mën naa faj nit fekk garab laa koy jox mën naa faj nit fekk dafa koy ñaanal dimension yi ñoo tolloowul man sama wéy li may wax sama yaay moo ko xam man sama li ma xam ñëw na nit toog wax ne Cheikh Omar maa ko jox benn xam-xam man waaw bu ma dem ci yow rek bëgg nga xam-xam damaa bëgg lu may justifié wu rek lu may layee nga xam ne ëllëg nañu wax ne diwkat jaar na ci loxoom mm-hmm. diwkat jaar na ci loxoom mu nekkuñ xam bu ko defee ñu nangul la sa xam-xam ndax maa ngi fàttaliku Cheikh Mahi Cissé bi may ñëwee ci moom ne ko damaa dem ci xablu Baye wax Baye ne ko dama bëgg nga ijaasa am it laax bugguma ko ci intermédiaire ma ko bugg sa loxo ak sama loxo sa guddi ga Baye ñëw joxuma ma ko ijaasa it laax ma ne Cheikh Mahi Cissé dugg ak moom ci biir néeg bi nettali ko ko ma xam naa ma am nga digal ci ijaasa it laax waaye ñëwal fii. ba ma miin la ma bindi ma bindi ijaasa bi yaxal ko jox la ko ndax ëllëg bu ñu la laajee nga mën a wane preuve këyit. mooy layoo gi ngay wax. mooy lay gi waaye man samay mbir dimension bi ma yàlla defal ci tawfiix alhamdulilah mhm. weesu na dimension wu nit ñi ndax nit ñi seen ay gis-gis dafa gàtt. àddina bi ñu nekk ak àddina bi dëgg-dëgg bi xamuñ ko mbokku bokkuñu ay dimension loolu moo tax alhamdulilah jaar naa sama wéjuru góor mu jàngal ma xamal ma faj bii ci moom laa ko jëlee. waaye bokkut ak li nga xam ne sama mbir bokk la li bokk ñi bokk ci man nekk sama ay famille xam nañ loolu mm, ma jaar ci loxol Cheikh Mouhamad Nazir ci wàllu tasawuf nga xam ne góor yàlla yi bu ñuy nekk góor yàlla ba nga doon ne ay mbóot ci yàlla bi ba nga doon yàlla mbóotu yi ci xadara yàlla bi xeewu ci seen borom ba nga xam ne lii yàlla ak lu dugut yàlla ñu xàmmee génnee ci mbokkaale yàlla loolu jaar naa ci ni ñuy góor yàlla yi di jaaree am ci wasila mu jox ma ay ay ay ay jox ma ay askar jaarale ma fi ñuy awale nit ñi tarbiyama ci loxoom mu Cheikh Mahamad Nasir ibnu Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ba ma xam sama borom xam gu wér nga xam ne mucc naa ci bokkaale yàlla comme ni nga xame ne loolu baay wax que ne ki gën a ci aw toppam génn na ci mucc na ci bokkaale bi bokkaale yàlla Cheikh Mahamad Nasir seedeel ma ne man aarif laa ci kanam taawa Moustapha ak ta eh, bëkk néegam Babacar ca neema ca Gàmbi moo fa yóbbu woon Cheikh Mamadou Nazir kon jaar naa ci góoru jaarikaa jaay jaar waay góor ñi eh, damay wax ne xam-xam ci médecine traditionnelle duñ ko jàng ñuy jàng ay garab lañuy ñuy jàng mais médecine traditionnelle le moo pur et dur loolu ñu koy doon dañ koy ñëwaale wala yàlla boole leen ak ay mbindeefam yoo xam ne ñun ak ñoom bokkuñu ay ay xalam ñuy nekk ñoom ak ñun fi ñuy nekk duñ bokk ñooñu ñoo mën a nekk fajkati cosaan. maanaam mbindeef yi mel nan. yàlla bu dina la may ay rawxaan wala mu mel ne ay jinne mhm. yoo xam ne ñoo lay xamal li nga xam ne ca xam-xam jotewu ca ñooñu ñoo mën a nekk médecine ñoo mën a nekk médecine traditionnel moo tax médecine traditionnelle bi ak médecine moderne bi xaw a utee ay doxalin ñu bëri dañ leen bëgg a boole mais mënuñu ànd mën nañu ànd ci ay maslaha waaye mënuñu ànd ci ay dimension mënuñu ànd ca ay résultat mënuñu ànd ca ay preuve ay euh, jumtuwaay jumtuwaay parce que loolu moo tax résultat bi may am soo ko bëggee méngale ak médecine moderne bi dafay tolloog professeurs yi wala mu dépassé sax dépassé na inventeurs yi lay tollool wala mu tolloog euh, euh, scientifique yi parce que fi ma mën a jëlee xam-xam scientifique yi lott nañ ci dem fa kii professeurs yi lott nañ ci dem fa bokkuñu ay dimension moo tax médecine traditionnelle valeur bi mu am médecine moderne attanu ko puissance bi mu am médecine moderne attanu ko moo tax ñu leen di ignorer parce que xam nañ ne bu leen joxee bu leen joxee bu ñu leen joxee considération rek ñoom dootuñ feeñati la preuve est là mu ngi nii corona bi mu ñëwee ci àddina bi yëpp scientifique yaa ngi fi jumtukaay yaa ngi fi xam-xam lépp mu ngi fi. xaalis baa ngi fi xaalis baa ngi fi mais médecine traditionnelle moom moo mujj génnee solution bi loolu benn preuve bu ndaw la rek tour nañ nañ nag la doo na woon nañ ko waaye léegi loolu bu ci waat nañ jàkkaarloo médecine traditionnelle di ko sóoraale di ko bàyyi xel. les temps que ñu bàyyi xel ne médecine traditionnelle ki donc man sama CV man sama baay man moo ma jàngal moo ma yar moo ma jàngal ci wàllu àddina ci wàllu alxuraan ci wàllu lépp loo xam ne yàlla doogal na ko ci xam-xam ñu koy xam bu dee ci wàllu mu tasawuf Cheikh Mouhamad Nazir doomu Cheikh Ibrahim Niass muy Baye Niass moo ma tarbiya ci loxoom boolewuma ak benn mbindéef yàlla amoon sama jot lool seedeel ma ne ma aarif billaa nga xam nga sa borom xam gu wér te bàyyi Niass ba muy wax ne moom xaarif la dafa waxoon ne baayam moo ko ko seedeel ba muy lim di lim di lim di lim di ba ci Cheikh na Ahmada Tidiane yi kon xam-xam buñ koy am ay borom xam-xam ñoo la koy seedeel la koy seedeel donc man faj bii ma nekk nii samay moroom yi fajkat yépp ñu dëkk ci sa réew mi xam nañ ne man fajkat laa te xam nañ ne faj bii ñi ma ci xam ci réew mi xam sama ndaw xam sama màgg xam nañ ne du lu ma programmé tappale ko teg ko ci sama kanam di ko nexee nit ñi xam nañ ko ndax ñu xam sama ngone xam nañ ko ba may am juróom-ñaari at sama baay yóbbu ma école française may jàngi ba ma dugalee école may jàngi ba mu yàgg dama ne ko papa man fii lii du suma cër ci ati juróom-ñaar ba may amee juróom-ñaari at ma ne ko lii du sama wàll man sama wàll ak cëriñ la génne ma fii sama baay génne ma fa loolu wax naa ko ci ay émission yu bari ba may am juróom-ñaari at. sama ñëw sama yaay ne am na lu ma ci nettali sama waajur wu góor su bay nopp lu ma ci nettali lu bari man samay mbir daf ma fiy jiitu di ma fi xaar di ma ñëw fekk ko fi. man bokk naa ci ñi ñëpp xam ci góor ñu mag ñi góor yàlla yu mag ñi góor yi nga xam ne ñoo li wax góor yàlla képp koo xam ne xeewoo nga benn wilaaya ci kaw àddina xam nga ma man Cheikh Omar Diop moo moo xam ku kuy dund nga moo xam ku fàddu nga donc bokkuma ak nit ñi fajkat yii ay dimension bokkuñu sax fiñ ne donc man yàlla may na ma cër boobu ci ci ci ci ak xam kon faj bii dama koo xam donc yàlla may ma ci tawféex mu am ci expérience lu mu ndaw ndaw def naa fi ñaar fukki at ak lu topp ndax jaar naa Dalifort 2015 95 ba 2003 ma jugee fa ñu ngi Dalifort dem fa dem fale euh, euh, gannaaw raay naa ko wax nekk fa ba 2003 ba 2015 ba 2011 ma jugee fa jugee Dalifort ñëw cité Cité Fadia 2011 ba 2019 ma jógee foofu maa ngi fii cité Alioune Sow ci wetu jumaa ji donc man sama palmarès dafa nekk palmarès bu riche boo xam ne. Mhm. dafa ànd ak baatin. ndax boo xoolee deux mille quinze quatre vingt quinze ak deux mille trois huit la mhm. soo xoolee euh, boo xoolee deux mille deux mille ba deux mille onze huit ans la. Mhm. soo xoolee deux mille onze ba deux mille dix neuf huit ans la. donc yooyu ñetti wit yooyu am na lu muy tegtale damay bañ gaa yi dugg ci mbiri baatin yooyu <laughs> euh, waaye wit chiffre bi chiffre wit am na fu mu jëm ak ñetti wit yi tamit am na fu mu jëm tey maa ngi fii donc yàlla bu bëggee jaamam bëgg koo dénk mbóot dafa koy toppal boppam moo koy organiser ay programme moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax ci wàllu CV bi ma laaj ci sama bi bu lu ñu bind la. Mhm. dañ koy bind mu nekk lu ma a lu ñu mën a présenté ñu ne diw jaar na fa diw jaar na fa diw jaar na fa diw jaar na fa mhm. waaye am na yeneen yoo xam ne dama ko tëb ndax émission bi moom pour ñu mën a xaj ci émission bi. Mhm. donc wàllu médecine moderne médecine traditionnelle bi. mu am actuellement euh, liggéey ñi ci nekk di ko pratiquer te sellal ko rek ñoo ko fi indi. te loolu ci système boo dem am na ñoo xam ne dañuy saboter. am ñoo xam ne dañuy pratiquer normal am na ñuy pratiquer normal nag man ñooñu ñoo ñoo tax may wax am nañ ay exemple yu bëri yoo xam ne tey ci ci réew mi fii liggéey na ci médecine traditionnelle loo xam ne tey boo bëggee xam lu baax ak dimension médecine traditionnelle fu mu toll soo leen consulter wala nga toog ak ñoom di nga xam ne médecine traditionnelle bi du ay faux ndax li ñu may li yàlla may ci ay dimension xam-xam ci yeneen ay planètes ak ci yeneen ay espèces yoo xam ne ay ay mbindeef la ñu pousse euh, ñu mën a am possibilité mën a ko connecté ak ñoom di gis loo xam ne nit mënu koo gis di gis loo xam ne appareil mënu koo wone donc loolu bu yàlla mayee nit ki ci dimension façon xam-xam boobu kooku pour mën koo def fokat wala bu ko cla classé ak yeneen nit yi loolu dafay nekk loo xam ne ignorance lay lay lay xaw a nuru hmm. koo xam ne bu ngeen toogee yéen ñaar yow mi jàng machine moderne yow moom buy wax doo wax te loo mën na koo tekki wala xam na ko man mën naa nit malade day ñëw ci man malade yi dañuy ñëw ci man bu ñëwee ci man dama leen di laaj suñ ma waxee man damay xam mën naa leen a defal consultation sans ma jël benn appareil teg ko seen kaw te lu ma la wax na moo la dal boo demee ci médecine moderne bu ñu la defalee consultation loolu mooy nekk sa feebar donc kooku mënoo ko tëkkale ak ki nga xam ne bu balaa moo xam lu la dal rek foo mu jël appareil. foo mu samp lay appareil. foo mu samp lay appareil bokkuñu ay niveau. bàyyoo xeebuma leen nag parce que àddina noonu la ko yàlla tëralee parce que science dafa nekk mbir moo xam ne ay nit ñu xereñ ay nit ñu lu gëstu ñoo tax ñu am dimanche niveau bi ñu waaye ñun yàlla moo ñu tànn rek may ñu lim ñu may te waana fàddala bi yedi laay yuti man incha yàlla mooy jox daam lu ko soob donc jox nañu loolu ci xam-xam xam nañ ko dama bëgg tey ñu waxtaanee jàngoro yi nga xam ne muy ndoxum siti hmm. France naan ko psoriasis hmm. ak li nga xam ne mooy les hémorroïdes mm. muy interne tout comme externe mm. ak li nga xam ne mooy les dysfonctionnements sexuels mm. maanaam lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum ngóora donc bëgg naa nga waxtaanal ma si ñett yi waaw alhamdulilah ñetti jàngoro yooyu naka jàngoro yu sonal ni nit ñi ci jamono bi ndax li ñuy lekk moo ko waral euh, ndox siti doomu aadama bu nekk am na ko moom am na ndox siti hémorroïde euh, dafa am lu koy indi dysfonctionnement Euh, tamit am lu koy indi ak ñu ci nekk am na ay cause waaye li nga xam ne mooy hémorroïde ci laay njëkkee di feebar boo xam ne dafa dafay sonal ñuy toog lu bari te di sonal ñuy taxaw lu bari di sonal sportif yi di sonal lutteurs yi di sonal li nga xam ne chauffeurs yi lañ donc feebar la boo xam ne dafa bëri ay dafa am ñetti niveau yoo xam ne moom la hémorroïde am bu ñuy wax interne ak externe mooy ñaari façon yi. mais hmm. dafa am ay ñetti degré premier degré bi dafay nekk interne ak deuxième bi troisième bi mooy externe bi donc su fekkee ne yàlla dogal na ci yow nga am man ñi ñëw nga am hémorroïde bi dafa bëri ay symptômes yoo xam ne nit ki dana ko am ci boppam. dina gis sa yaram di tàng. Hmm. ngay gis nga am constip ngay constipé doo fa hémorroïde ak colopathie dinañu indi ngay am constipation ngay constipé hmm. te dinañ am ballonnement. danañ bokk tamit di lay ngay am mal digestif maanaam ngay dige ngay ngay am problème digestion hmm. dana waral tamit ngay def dem sa anus bi di ngay am fissure anal sa anus bi am fissure booy ngeen booy dem sel fekk mu wow mën na indi tamit nga am problème mu éjaculation précoce wala nga am problème mu faiblesse sexuelle mën a rétrécir tamit sa sexe bi wàññi ko ba nga xam ne dafay ndaw. hémorroïde hémorroïde bi mën na def loolu ak colopathie bi ñoom ñaar ñëpp mën nañ def loolu parce que ñu en général ñu am hémorroïde dëgg internet bi da ngay gis seen dañuy seen sexe day dellu comme bu xale loolu tamit mën na ko indi hémorroïde bi donc traitement hémorroïde bi dafa am durée moo tax souvent damay dégg ay yenn fajkat yi di wax ne hémorroïde boo ñëwee dama la koy fajal ci benn fan loolu man su ma ko damay ree damay xam ne kii xamul hémorroïde xamul organu nit xamul nit ci boppam parce que euh, mu ngi ma ni tey rek ku taxaw wax ne man mën naa lekk yàpp dem ko toilette tey. Mhm. xam nga yàpp xam nga ne 17 heures de temps lay toog. pour mhm. nga digérer ko. Mhm. balaa nga koo mën a dem sel donc loolu boo ko waxee ku xam daf lay reetaan. donc day xam ne yow li ngay wax xamoo ko. te it li ki ngay waxal xamoo ko. bu dee nit sax day jug dem yoonam. day jug dem yoonam bu dee ko am xel lay wax na waa incha allah dinaa ñëwaat. fekk na yow kooku moom pare nga ci damay def damay def eh, émission ne maa ngi lay woo léegi incha allah yaa ngi dégg. Mhm. da wax ne la da ngay gis bu dee kooku da lay reetaan na la waa mbaa incha allah dinaa parce que day fekk kooku xëy na am na expérience ci wàllu médecine mhm. am na expérience ci wàllu am na expérience ci wàllu médecine mhm. maa ngi maa ngi def émission ne mais ma tuuti suma pare ma woo la yaa ngi dégg. xam na expérience ci médecine wala mu yàgg dem ci médecin yi xam na daal am na euh, tuuti bu ko defee xam ne yow xamoo daanaka loolu dafay waral euh, mu mel ni ñun dañuy foo fekk genre yooyu ñoo ko indi donc hémorroïde man ci trois semaines laa koy fajal de doo naanee garab yi deux semaines dootoo yëkkati dara mais troisième semaine bi dañ koy compléter pour interne interne bi set wecc mm-hmm. externe bi moom boo naanee garab yi rek day gaaw dañ parce que man sama traitement traitement bu fiable la boo xam ne boo ko naanee da ngay gis résultat bu comme bu exact ndax li may wax dafa nekk loo xam ne expérience bi dañ koo def ba pare ndax man yéen pratiqué naa bi plus de vingt ans ndax ñetti tudd ñetti dix huit ñetti ñetti. Euh, ñetti bi ma la wax rek vingt quatre la mois vingt quatre ans la. donc te def na def naa ko ci médecine bi bokkut ak li nga xam ne dama ko dama koo màggaale ci sama ak ndaw. Mhm. donc xam naa médecine bi xam naa tamit. faj bi ak feebar yi. donc expérience bi foofu la ñu utee man ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy toog di laajte waa Cheikh Omar Diop moom fan lay jëlee résultats yi. nga gis ay nit yu jógee ba Europe di ñëw fii di ma di di ci man faj. yoo xam ne ay européens yi dañ leen di faj ba sonn mënuñ ci ñoom dara. comme le cas de hépatique B xam naa danañ ci ñëw ci kanam. dinañ ci ñëw waaye ñu yem ci hémorroïde. hémorroïde est-ce que dafay rayee. am na ñoo xam ne dañuy moo leen di rey parce que hémorroïde am na ñoo xam ne man suñu ñëw ci man da ngay gis dañuy am na ñoo xam ne bu ñu ñëw duñ bu ñu ñëwee def consultation duñ toog taxaw durant seen consultation dañuy parce que duñ mën a toog bu ñu toogee rek macha allah mara détaillé parce que fekk affaire bi externe bi génn na ba ubbeeku ba ba euh, euh, euh, kii bi anus bi ubbeeku. Mm-hmm. donc man bu ma leen garab. deux deux kii rek deux semaines da ngay gis bi dañ mais dañ koy naan ba xam ne sax bu dee chronique dëgg-dëgg la da ngay ba un mois pour nga wér carrément nga xam ne dootoo ko dootoo ko yëgati. bu dee ci wàllu ndoxu siti bi tamit parce que ndoxu siti bi boo gisee euh, maladie la boo xam ne maladie infectieuse la parce que hémorroïde euh, ndoxu siti beeg hépatique beeg diabète beeg yooyu yëpp ku ta faj maladie maladie infectieuse mënuloo koo faj. d'accord ndoxum siti bi nan lay manifesté woo ci nit ki. ndoxu siti bi ni muy manifesté si ne dafa bëri. Hmm. am na si ñoo xam ne daf leen di karaw guy ruus. am na ñoo xam ne daf leen di def bu ñu sangoo pare ñuy xasam am na si ñoo ne daf leen di def ñu am problème insomnie am ñoo xam ne ñoo xam ne daf leen di def ñu am bouffée de chaleur am ñoo xam ne daf leen def énerve ñu am ñuy am ñuy am euh, xol bu tàng di mer. di énervé wu di na ñoo xam ne daf leen di def seen diggante baaraami tànk yi am lu weex loolu ñu koy wax pied d'athlète am ñoo xam ne daf leen def seen suuf tànk tàng mel ni ku tëgg xalu safara wala boo solee daal lu mel ne sa der bi dafa taqali ko ak sa yàpp bi. loolu eh, ndoxu siti bu bu yàgg moo koy def. mooy yaram bi xëpp ko. am na ñoo xam ne dañuy def dañuy def ay heure am na ñoo xam ne daf leen di def ay xam loolu yëpp façon siti la yoo xam ne benn bu ci nekk rek ak symptôme bi muy génnee ci côté boobu noonu. donc loolu mooy ay symptômes yu siti ak léeg ñi nga xam ne seen ay wee day ñuul. ak ñi nga xam ne seen wee day jékki-jékki rek fokk dañ dañ wadd ah yooyu yëpp ci façon ndox ak ñi nga xam ne seen bëti day lëndam. yooyu ndoxu siti moo koy waral. ah kon dafay jàpp bët. day jàpp bëy sax am yi ñuy am am na ci ñoo xam ne ten tension ndoxu siti moom moo koy def su bëree si sa yaram te amuloo garab boo ko fajee bu yàggee daf lay indi tension hmm. hypertension yi ngay gis nii yëpp ndoxu siti moom moo ko indi ku mënta faj ndoxu siti mënuloo faj hypertension donc loolu yëpp dafa nekk ay cause yoo xam ne ci nit ki mooy waral nga gis bu dee hypertension la da ngay gis médecine moderne bi dañ lay jox garab à vie mënuñu la ko fajal. waaw parce que mënuñu xam. dayoo ba mënuñu gis ndoxu siti mënuñu ko faj. loo xamul cause bi mënoo koo faj. mënoo koo faj loolu moo indi hypertension boobu ngay gis ndoxu siti moo ko indi. c'est-à-dire que symptôme yi rek la médecine moderne bi di faj. la mën a sama nopp yaa ngi riir. voilà ñu la naanal garab bi hypertension garab bi ko. nopp nopp yi arrêté fekk yaa ngi amee hypertension. yaa ngi amee hypertension. loolu ndoxu siti moom moo koy def. donc su fekkee am nga garabu ndoxu siti booy naan garabu ndoxu siti da ngay dem ba yàgg station bi day am da ngay am tension normale léegi su fekkee ne nag lu mel ni hépatite B yi ak ak diabète yooyu boo gisee ñoom mënuñu ko faj c'est parce que cause bi loolu la mënuñu am base bi nga xam ne moom lañ mën a xam pour mën a xam nit ki fan lañ koy jaar pour fajal ko parce que man diabète dama koy faj ba mu wér diabète dama koy faj ba mu wér te xoolal suñu leer ni dinañ ci ñëw danañ ci ñëw mm-hmm. donc yooyu yëpp ah, bu dee wàllu faiblesse sexuelle la nga xam ne nit ki su amee problème rectum am problème stress ak fatiguement ak li nga xam ne mooy constipation bu yàgg loolu day indi nga am problème. maanaam seere quoi seere bu yàgg. day waral nga am éjaculation précoce day waral nga am. manque gaaw a sa bopp. di gaaw a pare wala seet soxna. Hmm. day waral nga am problème érection mooy am kattan bu dëgër bu baax ndax jigéen dañ koy soxla bu baax sax hmm. booy seey sa soxna. Hmm. sa sàkkara bu nooyee du ko arrangé daf koy manque daf koy dégoûté. boo bu sa sàkkara dëgëree daf koy may daf koy may appétit sexuel bu baax moom ku jigéen ki. parce que boo xoolee jigéen ku sexe bu jigéen si ko jigéen lu mu lu ko war noonu yëpp ci turu bi mm-hmm. lépp dafa am ay dafa am ay euh, organe la boo xam ne sa tis sa sexe bi bu dugg ci moom lépp lu muy laal foofu jigéen ku jigéen ki daf koy yëg bànneex mm-hmm. yaa ngi dégg loolu mooy waral ñu bëgg sexe bi di dëgër mm-hmm. ñoom tamit boo boo ko pénétré ba fa ngay yëgg tamit ci biir am na tamit beneen bànneex bu buñ fay yëg bu bu nooyee nag doo fa egg te loolu dañ koy soxla ci seen wàllu rapport mooy waral ngay gis boo paree ñu bamax la mm-hmm. boo paree ñu bamax bamax la nga daanu ci nga wàcc wàcc nga wàcc leen parce que boobaa sa poids dafay dafa leen di sonal mm-hmm. duñ yëg bann bànneex bu fekkee ne dafa dëgër mm-hmm. boo paree duñ la bamax nga wàcc mais dañ lay seere seen kaw loolu mooy indi loolu mooy indi nga xam ne kii kat satisfaire nga ko loolu moo koy indi parce que day fekk ñoom jot nañ li soxla. Mhm. ba sa lu mu diis diis duñ ko yëg. Mhm. ak tamit rapport bi lu mu yàgg yàgg. Mhm. duñ ci sonn parce que li ñuy yëg mooy tax dootu dootuñ yëgati fatiguement bi. mais bu ñu yëgut bànneex bi day fatigue dañuy fatigué dañuy sonn. donc loolu moom mooy waral boo amee problème érection. yooyu yëpp hémorroïde bi daf koy waral ak ndoxu siti bi daf koy waral. tamit waaye am nañ ci traitement bu baax man problème mu faiblesse sexuelle wala érection wala problème éjaculation précoce dama koy maximum bu yàggee un mois la bu yàggul quinze jours nga wér. Mhm. waaw yooyu yëpp dama koy faj. d'accord sëñ problème sexuel boobu nga waxoon ne naa ci waxtaan. voilà am lien na ak jabet. Mhm. ba nga xam ne nit ki soo amee jabet. dina ko waral mu am problème mu érection muy am problème mu appétit. Mhm. ci tamit ci wàllu sexuel parce que jabet bi bu yàggee ci yow day jàpp sa neer yi. day jàpp suukar bi day jàpp sa yaram bi day tax doo mën a am érection bu normal parce que deret bi mën a circuler normal. loolu yëpp dafay parce que su wàllu sexuel wàllu sexuel dafa nekk loo xam ne ci deret la aju sa deret bi bu amee benn anomalie bu ci nekk rek day cause day def cause ci wàllu problème érection ak wàllu problème appétit moo tax soo amee problème mu sexe diabète boo amee problème mu sëy soo ñëwee danañ la laaj su fekkee da nga am diabète dañuy boole ñaari yëpp defal la traitement bi wax la ñaata ngay fay pour ñu defal la traitement bi pour mu wér incha allah boo bëggee tamit traitement bi nga pour ñaar yëpp nga dem doxi sa soxla. d' accord dugg nga ci wàllum jabet. Hmm. waaw am na benn parenthèse bu ma bëggoon tijji waaye dinaa ci dellu si incha allah rabbi. Hmm. ba tey ci wàllum ci wàllum né néegu néegu sëy. Hmm. Ah, jabet boobu nga wax. mooy ñaari type yi. Ah, type 1 ak type 2. ndax jàngoro jooy faj la wala jàngoro jooy calme la ndax euh, wax dëgg yàllam doon na jàngoro joo xam ne jàngoro ju të la. boo déggee mën a të te médecine bi nga xam ne mooy médecine moderne bi moo tax mën a të. Eh, donc yow wax ñu ndax jàngoro jooju am na loolu ci të wala am na loolu ci tëwul. waaw médecine traditionnelle bi amul benn feebar bu ko dafay am koo xam ne dafa yéex a ñëw pour ñu faj ko am koo xam ne dafa gaaw a ñëw pour ñu faj ko foofu la tëbi nekk mais du loo xam ne luñ mënta faj la ki yéex a ñëw pour ko lañ koy fajal mën naa dem ba yàqu mu ngi mel ni bët bu tuuru wala bët bu waaj bët boo xam ne mu ngi commencé bëgg a gis hmm. demagul nekkagul euh, nekkagul glaucome demagul ba bët bu per bi yàqu Euh, euh, appareil bi yàqu. Mhm. kooku boo ñëwee bu ñu defee traitement ma ngay xool. mais boo mhm. demee ba appareil bi yàqu. Mhm. nga ñëw ne nañ la faj boo ñëwee faj ñu faj la wéruloo da foog ne mënuñ laa faj fekk mënuñ lañ laa faj avant ngay ñëw. yaa yéex a ñëw yaa yéex a ñëw donc foofu la ñuy wax type 1 bi ak type bi ci wàllu diabète bi foofu laa jox exemple bi. type de bi type yëpp mën nañ koo faj mais mu dépendre ci kii ñëw ak ci ban moment la ñu ñëwal kooku foofu la dépendre mais bu fekkee dafa yéex a ñëw pancréas bi am na nu muy mel dootul baaxati day yàqu parce que pancréas bi ci nit ki mooy tax mooy def production insuline bi. mooy insuline bi moom mooy def mooy fixé mooy fixateur bi. bi fixé suukar si ba mu dem ci vessie bi nga saw ko suukar si génn moo tax diabète diabète la diabète yi diabète yi ma leen di conseillé ñuy naan lu bari moo xam ko góor na moo xam ko jigéen la. parce que naan lu bari day waral suukar bi nekk ci vessie bi du fa toog lu yàgg te bu boo fa toogee lu yàgg mën na la indil infection urinaire. loolu moo tax ñu bëri ci am jabet yi da gis en général dañu am infection urinaire mooy ñi nga xam ne dañuy jabet ba pare te duñ naan. Mhm. moo tax suukar bi toog ci suukar bi toog ci biir euh, vessie bi dañuy bëgg ngay naan ndox muy éjaculé wu tuuti nga muy muy génn. Mhm. su ko defee nga mën a libre suukar si mën di set sa yaram moo tax ku am jabet da nga war di naan lu bëri. Mhm. moo lay dimbale sa suukar du la gaaw a daane. donc jabet dafa am type 1 e ak type 2 type 1 e bi moom euh, mooy ñi nga xam ne seen pancréas bi effort pour dëmmale leen ci wàllu insuline pour fournir insuline type 2 mooy ñi nga xam ne dañu leen di dafay fournir insuline mais dafay fournir dafa manqué dafa des moo tax en général ñooñu ay comprimé lañ leen di jox ñu koy naan ñooñu mën laa gën a gaaw a faj sax que ñu am type 2 type 2 bi mën nga dem faju diiran bu yàgg sax type 1 bi type 1 bi waaw mën nga am diir bu yàgg faj mais bu dee type 2 bi moom soo ñëwee ba amee un mois dañ lay faj nga wér su fekkee ne nekk na bu début bi bu dee boo xawee yàgg tuuti moom boo amee deux mois nga respecté garab yi nan naan ko normal da wér ngay lekk lu la neex naan lu la naan lu la neex mm-hmm. te mais da nga respecté nag sa régime parce que euh, même avant nga am jafet li li yoon mooy nga respecté régime normal parce que doomu aadama dafa am lu ko yàlla limité ci wàllu lekk mm-hmm. moo tax yonent saa salaam sunna si xadis mu wax ne nit ki na xaaj biiram ñetti xaaj benn bi lekk benn bi ngelaw benn bi mu def ko naan loolu soo ko respecté rek da ngay gis ne doo ta amati problème mu sukkar côté boobu donc man fajal naa jabet ñu bari lu benn du ñaar du ñett fajal naa ko jabet donc man damay faj jabet waaw sànq wax nga ci kii yéex a ñëw hmm. mooy borom type 1 bi nga xam ne pancréas am yàqu na bu baax waaw waaye est-ce que ñëwee te mënoo ko jàppale ba mu mën a kooku su ñëwee mhm. euh, bu fekkee bët yi dafa amoon problème mu vision day dañ mhm. su fekkee ne problème mu sexuel la dafa amoon problème mu sëy ak jabaram day dañ su dee dafa jeexoon tàkk day dañ bu dee dafay saw lu bari day dañ bu dee dafa am problème insomnie day dañ bu dee yaramam dafa ras mel ni ku màgget loolu day day loolu am na chance pour chance boobu bu dee nag dafa dem ba commencé def ay ko am commencé am ay conséquences di commencé yàq yaram bi. Mhm. loolu dem dama koy faj ba mu wér bu fekkee góom la bu dee dañu amputé. waaw góom boobu la bëggoon ñëw sax. bu dee dafa am góom dañ koy faj mu wér carrément su dee dañu amputé ci benn élément ci armaan membre yi. Mhm. dañ koy faj mu wér complètement su dee neer yi dafa commencé yàqu mën nañ ko faj ba mu wér completement loolu am nañ macha allah garab bi. pour fajal ko nit ki ci ki nga xam ne borom waaw pour ki nga xam ne problème kii ki nga xam ne tamit dafa am problème mu diabète am na mille sens am problème mu li nga xam ne mooy dialyse mën na parce que diabète dafa garaaw mën na yàq sa rein mais sama saw bu bëri bay tax voilà mais moo tax ñuy naan loo nit ki ndax rein yi di mën di set tout mhm. loolu moo la ciy baax mais boo dul saw day tilimal rein yi te da koy diisal dafay sonal deret bi day sonal rein yi da yàq léegi nag su fekkee ne naan nga sama garab yi loolu yëpp da am milstance loolu nga mucc ci waaw su bu dee borom type 1 bi la nii borom type 2 bi. d' accord da bëri na wax dëgg yàlla moom. waaw insuffisance présentement bëri na trop en Afrique. Hmm. même au niveau de l' étranger. Hmm. fii am na ay weer ci gannaaw déggoon nga sax ñu ne woon ba am ba médecine moderne amoon problème machine pour euh, ñuy def dialyse. Hmm. ñu amee insuffisance rénale ak affaire yooyu. donc bëri na ci dëkk wax nga dëgg. ñu dugg ci ci wàllum beneen bi muy wàllum hépatite. hépatite muy maladie bu fréquente fii au Sénégal en Afrique waaye euh, déewoon nga ñu ne yaa ngi ci ëpp ay patients au niveau de l' étranger mm. hépatite bi mm. qu'au niveau du Sénégal lu waral loolu ñàkk xam gi la wala ñàkk wala wala ñàkk farlu ki wala bëri caaxaan la wala ñàkk xam rey gi rey la lu waral mu bëri fii bëri fa waaye sa patients yi ëpp à l' hépatite bi waaw xam nga suñu état wala suñu gouvernement wala suñu euh, euh, aada ci réew mi mm. mooy dañuy bëri lu ñuy nëbb boo waxee benn wax sax ñu war ci yee nit ñi pour ñu xam ko mën nañ la wax na lu tax nga wax loolu su fekk na nit ki kuy dund ci réew mu nekk da nga war a informer nga xam état de santé bu nekk nit ku nekk mu xam état de santé bi su amee feebar mu xam feebar bi ban danger la am mu mën koo moytu mm-hmm. donc hépatite nekk na feebar boo xam ne Euh, dafa am ay catégorie juróomi xeeti hépatite moo am am na hépatique B am na hépatique A hépatique B hépatique D hépatique C hépatique E waaw A ba E la donc hépatite yooyu am nañ donc hépatique B mooy feebar bi nga xam ne moo gën a hépatite bi gën a fréquent ci zone Afrique bi mm-hmm. donc même Europe sax hépatique B daanaka moom fa gën a yaatu hépatique C am na ak hépatique A mais ñooñu ser ça dépend ci nit ki ak ak organam ak surtout ak euh, euh, infection bi nga xam ne moo ko moo ko attaqué ci côté bi nga xam ne moo ko dal mën na ko indi yeneen xeeti hépatite yi donc gën naa yaatu loolu waaye hépatite bee ci laa gën a bëgg a waxtaan parce que ci laa ëpp ay résultats. Hmm. ci laa gën a yaatu faj. ci ëpp patient ci laa ëpp patient parce que ñu ma ci faj ci hépatite bee ci Sénégal ak Europe bari na bari boo xam ne mënu ma la wax duñ toll. Hmm. donc man hépatite dama koy faj ba mu wér. traitement bi nag souvent nga gis ñoo xam ne dañu am hépatite chronique ñooñu moom dinañ def ay un an traitement wala mu jege ko ñi nga xam ne hépatite aiguë la ñu am nga xam ne ñooñu seen hépatite chronique agul ñooñu bu ñu ñëwee dans les trois ou quatre mois cinq mois six mois dañuy wér ker dañuy wér cent pour cent parce que man yàlla may na ma alhamdulilah euh, sama patients yu bëri dañuy dem fële si nga xam ne mooy institut Pasteur. Hmm. buñ demee dañuy def foofu seen ay analyse man sama ñu leen di laaj kan moo leen di traité ñu lay wax tey bu ñu defee seen ay vérification dañu xam ne sama tur nañ foofu ci seen ay résultats mhm. donc man ndëbbatuwuma laqatuwuma am naa ay résultats yu baax ndax nit ki su defee man sama sart man nit mën naa ko defal traitement mu sart viral am dem ba set wecc yi hmm. mën naa la defal traitement ba nga xam ne euh, euh, euh, kii bi ki nga xam ne moom mooy sa anticorps yi positif li nga xam ne mooy antigène bi dañ ba set wecc ba loolu man yàlla may na ma sens sens boobu ndax ki nga xam ne yaa ngi koy defal traitement hépatique boo demee dimbalee ko ba anticorps ba système immunitaire am dëgër hmm. anticorps yi day positif ba anticorps yi positif rek da ngay gis antigène bi daal di donc charge virale bi ñu am na si ñoo xam ne dañuy ñëw ci man am seen charge virale day yéeg ba ay 74000 am na ñoo xam ne seen charge virale dafay yéeg dama leen koy wàcceel ci diina 3 ou 4 mois da gis mu nekk ay ay ay ay 100 cent moo tax souvent médecins yi nga xam ne euh, dañuy nekk euh, euh, hépatologue yi nga xam ne dañuy nekk Europe suñu gisee sama résultat patient yi dañuy étonné wu dañuy wax ne lii mënut a nekk c'est incroyable waaw am na si benn boo xam ne sax moom mu ngi nekk Paris. mooy wax naan ma ci hôpital militaire bi nekk Paris foofu laay defee sama ay résultats fa laay defee sama ay analyse ñoom bi ñu ma gisee sama hépatique bi sama hépatique boobu boobu charge virale am dafa yéegoon ba la la la la bi nekkoon mu oo wax ma ko mu ne mën naa ko faj mu ne ma sama hépatologue bi hépatologue bi dafa ma wax na ma bul del médecine bul naan médecine garab traditionnel mu ne waaye moom comme africain la mun koo ñàkk naan tax ndax loolu la gëm mm-hmm. ci as raison ah soo naanee garab yi da ngay wér mbokk koo joxee mu naan ko ci ci trois mois affaire dafa dem bi mu delluwaatee ci rendez-vous mu xool ko mu nekk euh, cent xaw ma ay poussière hmm. dafa ko wax ne ko lii mënul nekk lii kan moo la faj ñu ko mënul nekk foofu benn événement bu rëy. kooku moom trois mois nga ko daaneel. waaw même même euh, euh, hôpital Dantec bi hmm. am naa fa benn kii boobu patient boo xam ne jabar jëkkëram benn infirmière boo xam ne jëkkëram moo amoon hépatite mu ñëw indi ko ci man moom mu ñëw infirmière la mu ñëw ma wax ma tëkku ma dama ne nga def attention ci moom parce que boo ko indilee problème nangal na wa wax wax ma ne waa baax na man li ma bëgg mooy man naay def traitement bi yow ngay def analyse moom moom ci boppam wax na ma carrément ma yow résultat bi nga am dajee nañ ñun ñëpp def benn réunion ci sa cas sa résultat bi nga am wax na moom te maa ngi numéro téléphone maa ngi turam maa ngi lépp ñu ngi nekk fii euh, hôpital euh, donc man sama ay résultats ci Sénégal li ñu xam nañ ko Sénégal Cheikh Omar Diop ko ko dañ lay wax ne la ko fajam faj bu sérieux la yore te ku ñëw ci man di nga xam ne ma nekkuma fookat ku ñëw ci man di xam ne làmbaatuwuma te am na ay preuve yu leer ñi nga xam ne maa leen fajal ñi nga xam ne ñu ngi seen ay traitement yépp seen ay résultats mi ngi fii ndax man su dee ci côté hépatique ak côté infertilité ak côté diabète dama lay defloo ay analyse bëgg résultats yi concret ma téye ko politique bi nga xam ne gars yi ñu ngi koy mené dans le monde pour wàññi naissance naissance bi. yëpp causes yi am nañ ci xam-xam boo xam ne luñ teg ci plan bu ñëwee mën nañ ko teg teggi. Mm-hmm. waaw parce que weesu na rek ci gaa yi foofu vaccin yi gars yi joxe yooyu dem nañ ba lëkkaloo say seeyaat yi waaw nga xam ne léegi sperme bu jugee spermatozoïde bi départ dem ci ovule bi jinne yi sax dañuy dem ba ci ovule lu ndaw si da ko fa kar di dëpp spermatisé yi ba duñ am doom te loolu ñun ak ci bàttin dem nañ ba àgg ci xam ne ñoom sax dem nañ bay jëfandikoo ay jinne pour tax pour bëgg rek nit ñi duñ am doom nga xam ne kon ñoom weesu nañ fi nit ñi di xalaatee moo tax soo amul yenn dimension xam-xam waaye xéemun la yow déedéet parce que seen plan dama koy xam man boo dikkee toog rek dañ may déy ku ci nekk sa kaa dañ koy déy ma dégg ko donc am na xam ne moo tax du may seet ndax du ma seetee leen nit ki su ma ko waxee rek day daw parce que dama koy wax ba waxoon lu mu fanaanoo mën naa laa wax ba wax la lépp loo xam ne yaa ngi koy dund si sa àddina waaye loolu dañu ma ko aaye moo tax bugguma di ko wax moo tax ñu bari su ñëwee di ma wax seetal ma damay nasaxa xam nag nii rek wax la kerk moo rek ba nga xam ne yow da xam ne kii xam na nekkul di làmbaatu rek bàyyi la nga dem hmm. moo tax faj dafa am ay ay résultats yoo xam ne ci faj nit ki soo amul base boobu mun loo nekk vrai fajkat moo tax yenn cas yi nga xam ne mooy les maladies infectieuses yooyu dafay rax ay sayaatin jinne yi ak saya jinne sayaatin yi dañ ciy rax hmm. jinne yi nga xam ne dañuy lëkkaloog seytaane dañuy rax ci yenn feebar yooyu moo tax médecine moderne bi du ko mën a faj parce que la ci nekk ci cas boo xam ne ay cas euh, abstrait la li nga xam ne nit ki mënu ko gis hmm. mooy animé mooy mooy mooy mooy alimenté maladie bi hmm. moo tax ñoom bu ñu defee ay analyse dañuy am problème pour mën a détecter loolu ñun suñu am ñu am fort mën a détecter loolu moo tax ñu mën a faj hépatite parce ñu mën a faj jabet parce yooyu yëpp daf ci dafa am ñu mën a faj cancer ñu ma euh, euh, euh, nga baal ma sax parce que loolu dañuy aaye ñu wax ñu wax ñu dañ ñu koy aaye mm-hmm. ñu mën a faj bon ulcère bokk mm-hmm. mooy rakku cancer mm-hmm. ñu mën a faj ulcère parce que ku mën a faj ulcère ku nekk ku jàng médecine war ngaa dégg ci ne kii kon mën naa faj loolu baat boobu noonu ku mën a faj hépatite B mën ngaa xam ne mën ngaa faj tamit feebar bu mag boobu gaa yi di ragal a tudd donc kon xam nga li wax te gëstu na ak prostate prostate tamit ko war am na prostate dafa am ay catégorie dama koy wax rek am na ci ñoo xam ne nii nii dem àgg ci cancer prostate waaw cancer prostate am na ñoo xam ne dañu am infection euh, urinaire au niveau du prostate mhm. am na ñoo xam ne dañu am infection seen prostate mhm. am na ñoo xam ne dañu am prostate boo xam ne dañuy gaaw a dañuy saw saw bu bëri mhm. am ñoo xam ne dañu am prostate boo xam ne dañu montel appareil bi yooyu yëpp man buñ dikkee dama koy faxas teg ko nële faj ko mu wér oh, oh, prostate bu gonflé bi tamit dama koy faj ba mu wér donc man ay mag ñëw nañ ci man ne man yow ñett yow ñett ñii lañ ci Sénégal ñun mag ñi ne yéen a gën a xam prostate ci réew mi muy yow Samba Ndiaye ak Gawsu Samba wax nañ ma loolu nit ñëw na ci man wax ma ko ne ma ñun ay mag lañ te dañuy toog di waxtaanee seen ay faj yéen. donc kon alhamdulilah bu ñu ma cité ci ñetti nit ñi gën a xam prostate ci réew mi te ñoo ñu nekk ay professeur ci wàllu médecine médecine traditionnelle. ma leen di saluer di leen ñaanal yàlla ci seen liggéey ñu gën ci am ndam. Mm. parce que fierté la am na fajkati cosaan bu ñu reconnaître ci médecine loolu sant yàlla sant naa ci yàlla donc kon ñooñu noonu nga xam ne catégorie boobu ñu ma catégoriser ci ñoom maa ngi leen maa ngi lay rafetlu loolu tamit parce que dafay neex tamit ñu lay méngale ak ñi nga xam ne sellal nañ seen liggéey loolu li ma ci déggee rek mooy yaa ngi góorgóorlu yaa ngi sellal sa liggéey waaye ba tey maa ngi wax rek ne ñu bàyyi xel ci dimension yi ak dimension yi nga xam ne ak expérience yi hmm, d'accord léegi moo bëgg nga waxtaan ma ci li nga xam ne mooy mu tubaab ñi ak nit ñi ñuul ñi le fekk tubaab bi gën a gëm médecine traditionnelle tubaab balaa gëm problème la waaye boo ko joxee résultat moom attan na la dugal ci journaux yi sa répertoire waxoon nga ma ne am nga ci ay contacts yi ay tubaab yu bëri ñooñu nga faj leen ñu téye la jaral ñu defal la àddina li ci biir ak nit ku ñuul ki nga xam ne même boo ko defalee sax ba mu wér sax bu demee lu tax mu siiwal ko walla lu tax mu wax ko ban jàng nga am wala maanaam ban ñaxtu ngay am ci le fait tubaab bu weex tànn bi nekk à l'étranger gën a gëm médecine traditionnelle gën leen a fonk yéen que nit ko ñuul ku nekk fii. loolu dafa xóot. Hmm. dafa tubaab bi dafa jàngee xam ci làkkam moo tax francis francisme bi dafay ki jàngee sa xam ci làkk ci sa làkk bokkut ak ki jàng xam-xam ci làkku keneen boo jàngee xam-xam ci làkk keneen jikkooy naafiq day nekk ci sa jëf day nekk ci sa xalaat day nekk ci sa doxalin parce hmm. que ñàkk gëm sa bopp gi daf feeñ. baal ma ci kàddu bi quoi mooy naafeq baat naafeq loolu utiliser mhm. parce que da jël da nga bàyyi li nga xam parce que nit ki buy dund mooy ki bindoon benn livre am ñëw ci man loolu benn anecdote bi may nettali la pour ñu mën a comprendre li may wax ne ma dama bind ci nit fi ñu ko war a commencé yar te ah, loolu xadis ñëw na ci mhm. mu ne ma nit ki juddoo lañ ko war a lañ ko war a yar mhm. foofu lañ war a commencé di ko yar ba keroog muy nekk dem jàngi école yooyu ma ne ko déedéet yow fi ñu paree ci yar foofu nga commencé léegi kon sa livre bi dam koy def tome 1 tome ndax fi nga commencé noonu foofu la nit pare léegi tome 1 bi mooy fi nit ki ñëwee avant muy nekk nit nekkee oxygène nekk ci ADN nekk ci sperme jógee ci sperme ñëw ci spermatozoïde bi foofu noonu nga xam ne foofu la nit ki di nekk nekk ci biiru yaayam jógee fa alxuraan wax ne ba mu fa jógee la nekk ci lu mu deret nekk fa suuxu yàpp foofu noonu yëpp nit ki dafay nekk nit di dégg di xam di parce que liy takk ci nit ki di enregistré ci nit ki nekkul yàpp wi ak yeret deret ji loolu mën nga gën a xóot loolu donc su fekkee ne sa bàyyi day làkk wolof di làkk wolof wala muy làkk pulaar di làkk pulaar làkk pulaar ba nga nekk sperme muy làkk pulaar di làkk pulaar di làkk ba nga nekk lumbu deret muy làkk pulaar di làkk pulaar ba ba ba ba sperme bu jógee ci moom dem ci sa waajuru jigéen ñëw fa mu ngay làkk pulaar mu muy làkk pulaar nga koy dégg sa waajur di làkk pulaar nga koy dégg ba nga nekk nit ba nga jur bi ngay juddu ba am sept ans yépp ñuy làkk sa nopp yi nga xëy benn bés rek ñu ne la pulaar moom da nga koy bàyyi ne dootoo ci jëlee ci xam-xam. demal école française demal fran école française donc loolu dañ lay indi doute doute boobu ñu indi ci yow ma ñàkk gëm sa bopp moo waral africain yu bëri tardé te nit ñi ba léegi tant que gàggante wuñ gàggat boobu duñu mës a nekk les dirigeants de de du monde du monde loolu moo waral tubaab bi su gisee dëgg da koy nanguwul à 100 pour cent du ci am so coono parce que xamut mm, problème boobu noonu nekku ci jaaru ci parce que baayam français la doon làkk maamam français la doon làkk yaayam làkk français mu juddu njàng ko français xamul ñaari kii yaa ngi dégg moo tax lu quelque chose baatin laa lay wax ni loo xam ne dafa xóot daal scientifiquement nit ñi mën nañ ko ak nangu léegi nag su ko defee loolu dafay topp nit ki nga xam ne day jàngi médecine wala sere africain bi nga xam ne tey koy wax ne ko mu gis nga faj ko moom wér sax moom wér na wér na te du mën a sax communiquer ci yow ne bu gisee du mën a sax jàllale sa message kenn diw sangam fajkat la même mën na fekk sa jotaay boo xam ne sax dañuy xas fajkat yi te moom sax am audacité wala mu am courage wax ne attention def leen ndànk kii ñii fajkat yëpp meluñ nangam nangam nangam loolu moo indi parce que ñaari éducation yi ñooy tax donc ki nga xam ne nag tubaab bi nga xam ne moom dafa gis ne yow mën nga faj amul benn intérêt pour bañ a wax ne yow mën nga faj tubaab yi man dañ may consulter dañ may o dañuy dañuy dimbalanteeg man dañ dama leen di yónnee ki am na ci benn tubaab sax boo xam ne am na benn kilifa gu mag ci état Sénégal boo xam ne wax na ko ne carrément dama bëgg liggéey Cheikh Omar ci affaire hépatite ñu ànd dem ma jël ay kiyam garabam ñu dem Israël ñu def ko ay gélules ñu koy ñu jaay ko benn laboranté la sax boobu hépatologue en même am laboratoire am nekk Paris France donc man xam nañ ma dans le monde donc nekkuma koo xam ne damay wax nii rek pour wax mais am naa expérience ci wàllu hépatite donc ñoom gis boobu ñu gisuma ay résultats moo waral ñu accepté tellement nangul ma nii hépatique ak même diabète tamit noonu laa ci mel waaw. d'accord loolu leer na. loolu man ak ku dut man dina ko nangu dina ko accepter parce que c'est c'est scientifique et c'est très profond. Mm-hmm. waaw donc euh, loolu moo doon waxtaan wi xam ne dikkee nañ ko. xam naa ne fii ay fan. feeg ñetti fan wala ñeent fan di leen ñëw waxtaan ak yow ci wàllum li nga xam ne moo gën a baatin nag mm. mooy li nga xam ne loolu mooy le monde abstrait mm. te mu bari fi lool mm. muy ci wàllum jinne yi wàllum rab yi wàllum àndoon wala le monde invisible yaa xam noo leen di tuddee yow yaa xam mbindeef yooyu waaye nag xam naa ne c'est le monde abstrait c'est un monde qui me dépasse dépasse sama morom dépasse sax yenn sëriñ ñi taxaw di ko wootewu mm. ci internet beeg rajo beeg télé bi mm. loolu xam naa dinañ ci dellu si feeg ñett fan incha allah rabbi ci mm. su ñu dugal ko nit ñi nga xam ne ñi ngi lay dund loolu xamuñu ko ñu ràññee ñi nga xam ne ñi ngi koy dund te xam na ne loolu lan am boo lañ joxee solution ñu jokkoo ko yow dinaa joxe sa numéro incha allah rabbi ñu ñëw euh, def traitement ak yow ak jigéen ñi nga xam ne mu ngi leen di gàllankoor seen wàllum néegu sëy ak seen loolu lépp incha allah rabbi ak seen wàllu am doom ak seen wàllum am doom yooyu yëpp incha allah rabbi waaye daal maa ngi lay ñaan nga posel ma ko foofu ba fii ak ñett fa incha allah rek ñu waxtaan ci ndax euh, temps bi ma am dafa gàtt lool ci loolu te du ma man a euh, jàllale lépp maa ngi bàyyi nga tàggoog jaamu yàlla te ñaanal leen ci weeru sel wi itam également di leen gërëm di leen sant ñaan yàlla jàmm Sénégal salaamaaleykum